asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yu Senfootball TV nuyu naa leen bu baax am mbégte loolu ñëw euh, jox leen équipe probable équipe bi ñu jàpp ne Aliou Cissé moom la teg njëkk nañu def vidéo bi xam donc xëy na ñu saa nañ ko mais am na jumte donc euh, nit bu dul jum amul donc du coup voilà pour rectifier dinañ ñëw wax suñu xalaat ak suñu gis-gis gis ngeen ne Aliou Cissé wax na ne euh, système du changé expliqué na en conférence parce que donte Sénégalais yi gis naa ne moom pour ñoom système lañ ko changé andiwaat le système 4 4 3 ou le 4 4 bi xamante moom la ñu jàpp ne moo gën a méngoo ak joueurs yi ñu yor jamono bi mais Aliou Cissé nee système bi yor na les joueurs Euh, pour ñu mën ko jouer donte ku nekk mën nga si am sa xalaat par rapport ak latéral droit surtout un piston droite comme Noah Fadiga nga bàyyi ko fële wala Ilaay Camara euh, pour andil ñu Habib Diarra moom nag nee na kan club loolu la andi comme explication nee aussi Ismaïla Sarr li tax mu def ko piston gauche c'est un athlète de très haut niveau loolu Aliou Cissé wax en conférence presse moom jàpp na système bi baax donc comme comme jàpp na système bi baax na on a fait match nul euh, premier journée fii ci réew mi stade Maître Abdoulaye Wade contre Burkina Faso cette fois-ci dañu war jouer contre Burundi maintenant le même système la nous avons choix au niveau euh, de gardien de but je pense que ça va jouer entre euh, et qui mais a fait un très bon match Nous ne bi en parce qu'il n'est pas fort si balle avec lui. xam xam corner coup avant le match et aussi tamit euh, leneen lo xam wax na jeu de pied bi Salis a désiré kérok dañ koy passe temps bi passé il avait tout le problème du monde pour pour soit vous dégager wala passe Abdoulaye Seck mu relancer c'était compliqué maintenant nak man de préférence Mory la bëgg mais jàpp naa ne propre performance bi ñu def contre c'est Aliou Cissé moom lay ci camp yi aussi mo gëna am compétition parce que Mory gis ngeen ne waroon am transfert mu mujjee yàqu capoté à la dernière minute du coup il reste côté de euh, crème foot et il ne joue pas

boole ak euh, Abdoulaye ak kii di suñu monsieur le capitaine euh, Kalidou donc trois défenseurs et au niveau des pistons piston gauche le retour de Ismaël Jacobs. rien à dire c'est mérité et piston droite j'hésite entre Abib et Ismaël Sarr Sarr là que très haut niveau et Ismaël Sarr au piston droite la gis naa mais Ismaël Sarr piston gauche c'est la première fois ma gis Henry Gomes au Sénégal moi ko me gis mais euh, du côté de son du Marseille par exemple l'année dernière doon na ko joué quoi maintenant euh, j'hésite moom entre Habib Diarra ou Ismaël Sarr si pour Aliou c'est la jéem a dugg mais je vais quand même euh, mettre Habib Diarra bi wax Aliou Cissé wax ne mën na ko au milieu terrain au lieu je vais mettre Lamine Camara et Pape Gueye jàpp naa ne ni les ñii lay ñii lay Lamine Camara performance bu baax des def deuxième mi-temps bi mu duggee et aussi sans loolu sax euh, en termes de performance qui gën a gis si suñu milieu terrain la demi saison bi c'est Lamine Camara du côté de Monaco accompagné de Pape Gueye bi xamante pour man bi passé def na match et Aliou finalement va sanctionner kii Pape Matar Sarr bi xam da nga tegoon dans une position un peu compliquée parce que cela faisait un bas jeu numéro 10 jàpp na ne technicité euh, waroon na mën a def dernière passe et tout mais c'était très compliqué parce que ku ñu joxul bal mënoo def dernière passe c'était compliqué on voit que ce nouveau poste là Euh, Pape Matar Sarr assimilé ko certes technique bi mais je pense que Aliou Cissé va mettre euh, Lamine Camara accompagné de kii di Pape Gueye donc on aura benn trio d'attaque bu xamante ne sera Sadio Mané ailier gauche et ailier ailier droite on aura kii di Ismaïla Sarr attaquant de pointe euh, c'est cinquante cinquante entre Habib Diallo bu ma ko gisee du ma bett et Nicolas Jackson man de préférence Nicolas Jackson la la bëgg a gis. Aliou Cissé jàpp naa ne mën na leen andil kii di Abdou Diallo donc loolu euh, aussi mën nañ ko wax donte Nicolas Jackson dugalagul bii mais je pense que technicité bi mu am un jour de de ce niveau là nekk Chelsea on peut pas se permettre euh, di ko teg ba même si dugalagul premier bi am équipe nationale du Sénégal ba pare day raté ay raté lu lu lu mu warul raté euh, mais quand même ça reste un un très un joueur de très bon niveau bu xamante ne mérite na ñu continuer di ko jox confiance mooy Christian la lu mu wax bii comme que benn bu duggee yeneen dina ñëw.

au 77 352 3101, demain dem leen suñu yeneen plateforme aussi doole leen bu baax a baax c'est très important ci liggéey bi gars yi boo sur football TV euh, di le gis logo bi boo sur Instagram la même chose Bon ñu tapee football TV di le logo bi abonné doole donc jaajëfal naa leen wax leen ba beneen sur football TV.